c'est mental parce que quand même pour une première aller en coupe du monde mm-hmm. nga yegg ci niveau boobu c'est des jeunes pratiquement de jeunes filles mënoon mm-hmm. euh, nañu am complexe bi ça n'a pas été fait le travail moral mental boobu la mm-hmm. mën wax par rapport à ça aussi mais c'est important parce que tu as dit quelque chose boo xamante ni am na solo trop par rapport ak ñi nekk bitim réew parce que ñi nekk bitim réew aussi ci ci réew mi lañ dëkk absolument donc c'est important de créer cet échange un peu mm-hmm. culturel di ko wax parce que mm-hmm. am naa ci koo xamante ni Besançon la nekk justement ma koy ma koy ma koy nuyu c'est important euh, euh, qui qui a rejoint l'équipe et puis pour wax aussi par rapport à ça c'est ce qu'on appelle la fixation d'objectifs et mm-hmm. dans la fixation d c'est toujours sur trois temps donc à court terme donc boo xoolee donc comme ni nga ko waxee sànq la patience mais pour loolu il faut am une organisation et respecter les institutions mm -hmm. c'est-à-dire que il y a une direction technique nationale qui déroule un programme que ce soit le handball que le football ou autre et dans son programme il faudra les laisser travailler et dans ce cadre de travail là il est important de relever que dans la fixation d'objectifs il faut que mu am aujourd'hui euh, un travail aussi de base parce que xale yooyu noonu donc il y a eu quand même euh, de fait un travail de détection cas de sélection de présélection et et mhm. aujourd'hui quand on regarde le handball man je le suis depuis depuis très très longtemps je pense qu'ils ont opté en tout cas pour échanger avec les meilleurs dans le monde avec un entraîneur étranger aussi qui est mhm. là donc je pense que aussi il faut comprendre en tout cas l'objectif et la fixation d'objectifs que en tout cas le directeur technique national il a avec ses collaborateurs et ça loolu dafa am solo mhm. ndax loolu bu ko comprendre rek du ñu mën a xam nit ñi fan la ñu jëm donc bu donc court terme moyen terme long terme dañ koy xam ci saytu ko donc xam-xam la du nekk wax joo xamante ni li muy tuddee aujourd'hui ay tendance day nekk loo xamante ni xam-xam la des gens diplômés aussi ñu gën ko euh, wax ñoo xamante ni dañu war a jàng le cadre scientifique mais aussi le cadre empirique xaw ma nag mu mm-hmm. ma koy waxee maanaam dund li ngay dund nekkoon nga équipe nationale football man nekkoon naa équipe nationale karaté dund naa ko def naa sumay diplôme aussi donc dund ko samay voyage ak yow peut-être say voyage ak ñi ngay rencontré tey ci plateau bi nañ jàng lu bari donc la somme de ces connaissances là va nous permettre un peu de diriger ce qu'on appelle en, en tout cas euh, une équipe nationale et je pense que c'est important de discuter de ce point là parce que c'est pas un point simple que sénégalais yi ko noonu mm-hmm. que ñu dugg un tout petit peu dans ce qu'on appelle le professionnalisme toujours simple